ci bu gàmmu gi desee ñetti fan incha allah. am na wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla yonent bi rek lañ bëgg yonent bi la ñuy liggéeyal ñoom ñëpp ak barke Baye Niass bi ñoom ñooy booloo dajale indi seen ndimbal. dañuy joxe añ joxe reer joxe ndékki yëpp lañ koy def. Ah, bu gàmmu gi desee ñetti fan lañ koy commencé di ko def. Ah, day togg añ togg reer togg ndékki yooyu yëpp di ko joxe ba pare defar ay beñe dugal ko ci biir tànt bi yëpp pour nit ñi daal bu ñu xiif te bu ñu sonn incha allahu rabbi maa ngi oo ñëpp taalibe Baay yëpp maa ngi leen di oo ci bés bii di leen wax na leen bés bi seen bés la bési yónnent bi la ku ci def defaloo sëriñ defaloo kenn sa bopp nga defal ndax yónnent bi ku ci def moo lay fay ñi ngi oo ñëpp def seen alal képp koo xam ne bu nga see def sa alal ñi ngi am nañ numéro téléphone boo xam ne boo ñu ooyee incha allahu rabbi àddina bi yëpp danañ nga xam fa nga nekk ñu ñëw fekk la fa jël li ngi war a jox muy 77 578 11 83 bés bi bés bu ñuy soxal la bés bu ñu itteel la muy lan muy dimbale gan yi ndax gan yi ren dama am ñu jógee Nigéria Ghana Niger Cameroun ñoo xam ne dañuy ñëw fii ba Sénégal yi sax am na fi fiy ñëw ñoo xam ne fi ñuy dal ñoom rek ñoo fay dal ñun ñoo leen di jox lekk ñoo leen di jox naan ñu ngi o ñëpp autorité yëpp ñu ngi leen di ko dalee ci président ba ci gën a tuuti ci euh, parti politique yi yëpp ñu ngi leen di oo pour ñu ñëw jàppale képp ku ñu ci jàppale xalifa bi dana ko yëg euh, kilifa yi dëkk bi danañ ko yëg xam ne yow mii jàppoon nga ci bés bii nii ñu ngi oo ñëpp bawuñ kenn xeebuñ dara muy 1000 francs muy saaku soble muy diwlin muy ceeb xeebuñ dara ñu ngi oo ñëpp ci bës bi pour ñu ñëw jàpp ñu pour gan yi lekk bu suur loolu daal mooy suñu ittee mooy suñu lépp loolu la ñuy jàppale te ku si def rek yónneent bi nga ko defal waaye defaloo ko kenn sa bopp rek ngay defal. mouvement bi fi koy defee mooy ci julleekaay bi la ñuy toggee ci julleekaay boo dugg see boo ootee si numéro bu ñu la wax rek ki nga oo dana génn incha allah. ci Medina Baye Niass Medina Baye Niass dañ koy defee ci julleekaay bi fi la ñuy toggee fi la ñuy maye. mooy ñaanal xalifa bi yàlla yàggal ko fi ak njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi yëpp ak ñun ñëpp ak taalib yëpp ak ñiy gàmm ci ñëpp yal na leen yàlla indi si jàmm yóbbu leen ci jàmm ci barke yonent bi barke Cheikhu Tidiane barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë